yàlla defuloo kenn luy. Seydi Ababacar Sy premier xalif de El Hadji Malick Sy mars mars 2023. bi muy wujj suñu borom ay atam tolloon ci 72 ans Serigne Babacar Sy rabiyallahu taala anhu doomu soxna Rokhaya Ndiaye juddoo Sanda ci atum 1885 ci 37 ans la uutu kii di Maam Maodo doon ki njëkk initié gàmmu fii ci Sénégal bu ziar général ñëwee xel yépp dem ci moom ndax mooy borom ziar général lépp luy élégant le plus historique de tous les marabouts du Sénégal Serigne Babacar Sy radiallahu taala anhu lorsqu'il sort dans l'impasse il est la source des deux mers lii di sariya ak xaqiiqa doon ku Sénégal dul xam mukk 66 ans après sa disparition il est plus que jamais logé dans les cœurs et esprits de plusieurs générations de musulmans, en général des fidèles de la confrérie Tidjania en particulier. Serigne Babacar Sy rabiallahu taala anhu 25 mars 1957 25 mars 2023 borom bone carré bi yàlla defuloo kenn luy